ma seexloo samba ay sira xujje kumba ale borom ndam fas yaa nga ndam ale nga ndam way ndeela ndeela ndeela fatimata bintu rasulullahi salam fatimata bintu rasulullahi samam li ni toppe doomi garmi yaa ngi ci yow mu ilimaan loo mbokk yam jami loo xaadim caam sama doom ji ma ba mu jeex man loo tëgg wooma saamaan looy samaam ilimaan loo man woor naa la yaa dëgg sama mag dara naa la sama ndomoy sama woon naa la ana iliman loo naa la ndeela ndeela ndeela ndeela woon naa la dama lay woo woon naa ana paate fay la way ndeela jaali jaali mamu dem bak la gel ci loodo mam gorom far bay teeñ aji pendangaan jeng sa yaay woor naa la mbokk yaay Amar Diop taalibe Cheikh woor naa la ana Mor Diop fay woor naa la jamil loo mbokk yaay Eliman loo xalifa Eliman ana xaadim caamee o naala ndeela ana xaadim caam man de dama lay woo woo naa la xaadim man dama lay woo woo naa la ana xaadim caam la woo naa la golla dikko tenum jaay so woniraɓe sangor fatukinde ta fama ɗum e eh, bomane defal ñugis wonak omanum demal ɗo kendela sama sampiyo yangue Ndamaan looy samaam ilimaan lo sama doom bi ma bëgg ba mu jeex loo teg wooma. jërëjëf. yàlla de. di jégalu nak ci guddee gi ndax 18h la waroon commencé kon ñu ngi jégalu presse bi bu baax a baax baax a baax waaye mbokk yi nak danoo jëm ci bëss bu reuy bëss bu am solo mu war a le 14 juillet waye nak le PDG ñam Production muy ilimandoo ba mu duggee yàggul lu mu def ci làmb moom it ñu ngi koy gërëm bu baax di ko nuyu di ko jox wàcc waaye bu baax a baax a baax a baax waaye mbokk yi nag ñu ngi fi nga xam ne moom mooy ci Bargny waaye fii ñu nekk tey nag moom mooy centre culturel bu suñu papa Alaaji Njuga Jeng bi nga xam ne nii moo waral bés bi moo tax ilimaan jërëjëf wàcc nga def nga li nga war a def ndax drapeau bii xam naa ni seen too ci xaalis Papa Ndiouga Dieng di ku baax am lu mu def Sénégal waaye boo jëlee bés bu rëy ñu la koy rendre hommage di ko fàttaliku def nga li nga war a def man ñu ngi lay kontaane bu baax a baax a baax a baax a baax waaye nag di nuyu délégation bi nga xam ne nii ñoo fi teewal suñu papa Alaaji Ndiouga Dieng loolu xam naa ne Ouzin dina ci ñëw léegi monsieur Faye ñu koy bu baax a baax a baax la presse kenn amul seen fay yaay ndikku maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ak son ñu koy ñu koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam sécurité bi kenn amul seen fay. ndax jag rek yéen la waaye ki nga xam ne nag moom moo fi teewal CNG bi muy suñu papa suñu xarit di Alaaji seex Ndiaye moom it ñu koy nuyu bu baax a baax a baax di jéggul nag bu baax ci guddee gi xam naa dañuy tàmbali rek enchaîner mbir bi ndax guddi na bu ko defee nag ñu bàyyi ki nga xam ne moom mooy Ouzin mu nuyoo Ouzin maa ngi lay nuyu mon frère di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax. waxul ne maa ngi lay maa ngi lay fay bu baax a baax a baax. Euh,

jigéen lay woo sa yande jaay kaay awa jaay awa jaawa fay sa yande yaay ko jërëjëf ñu ngi kontaan ci bu baax a baax ndax xam naa ne lii bu amuloon géwal du saf dara kon yaay ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax et bu ko defee nag Ouzin comme guddi na dañuy daal tàmbali dugg ci mbir mi waaye balaa ñu ciy dugg nag damay bàyyi nga présenté ñi nga xam ne nii ñoo waral bés bi muy ñaari délégation yi après nag nga ñëwal ma ci mbër yi ndax bës bi ñoo ko waral

voilà ci liy jëm mooy euh, di remercier rek bu baax a baax a baax na partenaire di euh, nga xamante ni tey dañoo jàpp ci bés bi euh, ba mu mel ni feccum lii neexee dañuy faral di wax naan nday jaate waaye ku ne xam ne bu dul woon sponsor yi làmb ji du am dëgg la wala du dëgg. voilà merci beaucoup donc dañu leni euh, Dadi di remercier bu baax a baax 1xBet merci beaucoup merci également aux boissons Tampico les boissons rafraîchissantes merci beaucoup kontaan ci bu KBCL bokk na ci euh, ñi japp ci également merci beaucoup à Ndiambour belle viande yen ñi bëgg dawal yu rafet daal di leen daw foofee nga xam ne moo di ca belle viande merci beaucoup LVD TV ñoo mën ci wàllu lamb merci beaucoup fitness vert ndeysaan boo bëggee sa yaram nga daal di ko tàggat mu daal di baax demal foofee nga xam ne moo di ca fitness vert merci également à Ndiambour production alors mooy ñi nga xamante ni tey ñoo amal bés bi waaye mention spéciale à l'entreprise qui se situe à Sébikotane ñu daal di ñëw ci li nga xamante ni ndeysaan

ils sont là ce soir daal di ànd ak ñun ci bés bi alors ñooñu noonu je veux nommer ki nga xamante ni tey les grands acteurs de développement de Tëngéej waaye dëkk ci dëkk bi defar dëkk bee ko gën alors il est là di participer ci lépp luy développement Tëngéej je veux nommer monsieur Abdoulaye Faye directeur école Darou Karim ñu tàcc ko bu baax a baax a baax monsieur Abdoulaye Faye merci beaucoup monsieur Abdoulaye kontaan elle est là ce soir accompagnée de madame Oumou Katsou Diouf merci beaucoup merci également à madame Awa directeur d'école Kam Moussa Dioum merci beaucoup Moustapha Diol PDG aussi euh, du comité d'organisation ASEC merci à l'école Darou Karim Nami it dañoo ñëw tey daal di cette délégation du Gréni di nuyu

Dieng aji aram njeene jeex di doom ci El Hadj Diouf Dieng moom it du tàccandoo ko bu baax a baax a baax foofu laa yem waaye dinaa dellusiwaat léegi léegi. jërëjëf jërëjëf Ousseyn loolu am na solo waaye El Hadj Khadim Thiam le coordonnateur moom it ñu koy di bu baax a baax a baax waaye bés bi bu taaroo sponsor yi ñoo tax kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax waaye Ousseyn nag bu ko defee nag dañ bëgg dugg rapidement rek ñëw ci combat yi ndax guddi na muy bés bu rëy. di bés bu mag comme ni ma ko waxee léegi. grand combat bi. Petit Lo moo koy bëree di doom ci Modou bu jógee di ànd ak waa parcelle yëpp. Mhm. waaye ku muy dajal Brise de Mer 2 muy xale caaro yu géej mhm. di xale boo xam ne nii waa caaro dañ ko yaakaar. waaye combat spécial bi nag man mooy sama combat. mooy sa ndax ñaar ñu mën a bëri ñoo koy bëri. Mhm. dubal bu jagle. doomu jagle ak tëngeej. waaye ku muy dajal nongu daara. bu ko defee nag ñu ñëw ci combat yëpp. premier bi kan moo koy bëri Ouzin. waaw premier combat bi euh, dañu koy dooree ci euh, ki nga xamante ne moo di double bu jagle moo daal di am ki nga xam ne moom moo di ndongo dara ñu tàcc leen bu baax a baax a baax double bu jagle ak ndongo dara. ñëwul wàcc ñëwal ñëwal ñëwal. ay bu ñu si jigéen dañuy dem euh, ci doomu yoof moom mooy daal di daje ki nga xam ne moo di fils de Sam Sam na alors bu ñu jugee foofu daal di dem ca combat ba nga xamante ne ndeysaan combat bu ñëpp bëgg la it moo di fils de Mbaye Gueye ak Douglas. waaye bi ñu si jógee dañuy dem ci ki nga xamante ne moo di euh, Pape Ndaw daal di euh, daje ki nga xam ne moo di Boy Plateau ca combat ba ca topp moo di combat ki nga xam ne moo di euh, Calebasse ak Safara combat ba ca topp moo di Séni bu baax nii daal di ànd ak euh, ki nga xam ne moo di Lank Sané 2 waaye boobu gën maa nee la neex waay. waaw bëri na ngi doon ndeysaan. ay sama nga X9 dafay daal di daje ki nga xam ne moo di Modou Lo Junior waaye ki nga xam ne moo di Boy Dioum dina daje ki nga xam ne moo di Baye Gora bu ko defee rek ñu daal di tëjee ak ki nga xam ne moo di Bombal ak Guèye Ali waaye di neexul leen. tey la 14 li ngeen gis lu rëy bu ko defee nag ñu tàmbalee ak ki nga xam ne nii moom mooy Bombal xale bu mën a bëri. di ndaanaan waaye ku muy dajal nag ñu ne Guèye Ali ani Guèye Ali ani bombal ay géwal dugal lay loxo Guèye lay nuyu Badou Mbaye maa ngi lay fay ginnaaw bi auzu billah bismillah ina wali yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur sant waa yëmbal bi ma jógee di nuyu sama garab bi moo indi di nuyu ñu nekk ci saal bi yëpp maa ngi leen di nuyu du jóg maa ngi koy seen bombal maa ngi lay nuyu. waaw ah, dëgg kii kaay nii. kii xamante ah, nga moom sax barke Sëñ Fallou. kaay moom. yàlla xam du mën a moom. ba du may kii dafa yàgg ci yoon bi. waaw baax na xale bu ndaw laa damay door a ñëw. kanamu tàmbat bi ma yàgg ci yoon bi. kan moo yàgg ci yoon bi kan moo yàgg ci yoon bi. ma la fekkee le 14 bu ma la fekkee dama lay li muy bañ foofu mu laaxee man du ma lay daal man kii Sëñ Fall man ma lay daal. man góor du ma duma góor du ma duma léegi sa loxo góor du ma duma. xanaa déggoo ma. doomu yëngu laa góor du ma duma. yow jamono yi la ma eh, nuyu lu leer daal naa la teg lu mel na sëñ naa teg lu mel da ngay wax di xëxër ah, man daraay ah, tàppet nekkul ci man barke Bamba ah, man naree tappat ñu raay ma man doomu séeréer laa doomu séeréer nga waaw doomu soose laa nag lu leer laa la wax nii et eh, booy li nga am ci làmb ji rek nga am ci làmb ji bomba la tànjee nga dëgg la bomba a dugal ci kii gis nga ni toll waaw kii yow kii yow kii may a kii suuf kii du laa koy xaar ma yen ko lu diis lu dul attan. kan mooy mooy maa koy def lépp. dégg nga yow bëre ku war a nekk xale ku war a fit yàlla na may dem si combat man maa ko dàqa daan te dama koy daan. Ah, incha allah. noo koy daane. nu mu su su ma aagee jour ba dinaa xool li ma koy daaneel bu yaroo ma daan ko ndaw bu kii nag ma ma defal ko lu garaaw. la ilaha illallah force de lu muy bañ loolu laa koy def damay xeex ak moom force barki sëñ Fall day xeex day bëre Zourba na a ñëw xeex ak man da a ñëw xeex ak man yow da nga ñëw xeex ak man a na samay combat seetaan na samay combat man suñu damay xeex waaw xeex a ko dof ñu la jëm sax xam na yow mal daal damay indi laa xam damay indi laa lijjanti lijjanti wu ma li nga bëre li nga bërewul ah, léegi léegi côté mobilisation ngeen ngi koy wàññi ñu bàyyi waaw loolu moom maa ngi koy bàyyi ci loxo waa yëmbal rek di wo wa yombal yëpp li wo sama gaay ñi may andal sama boy yi may andal ma ngi len di wo ci combat bi elas Hadj ma ngi lay wo ci combat bi waaw di wo may pata sax da nga no, <laughs> ba no ba do may dama tiit barke Serigne Baba waaw maa ngi woo kii Amet Amet ma ngi koy wo ci combat bi di wo wa yombal yëpp dal nañ ma ñew jàppale ci bis bi ndax tike yi nañ ma jàppale ci tike yi daal di woo sama nijaay nañu na ñëw jàpp ci tike yi waaw man tike moo ma ñor. ay maa ngi waaye samay mbokk di woo waa Grand Médina heure bu 26 maa leen di woo si combat bi ñëw jàpp si gaan ma jàpp bërëb bi di leen ko bu yàgg sax kii a moom barki lu leer laa la wax nii barki yàlla kii day xaar war a jàppale nag suñu mel ne Youssouf Niang mbay jéegi am ay ñoom ay Moussa bu Ndaw ay ñoom Maodo maa ngi di woo ñun ñëpp si làmb ji ñëw jàpp ba rëbbi la bool yàgg sax incha allah du yàgg. Ousseynou da koy nen moo bëri. ma ne gars yi ma ne ngay ñëw lébu kaay lébu lébu lébu ñëwal tel boobu ñëwal lébu ñëwal. lébu lii bokk ci. si la bokk ndax gone gi daf ma tëb te man du ma moroomam man yàgg na maa bëri kane bëri kane daje na max moom nag yow nag nag ñu ne la euh, lébu nga dajal rek nga ne nag ah cere ji saf na laalo rek ay mu jóg. dama yay coob na yan. waa yow. nga ni. wuy ma tuuti. bu yàgg bu yàgg signature bi bàyyi ba ba le may gërëm may sponsor yi. ñii nga xamante ne tey jii booga ba tey ñang maa yefal leneen ñang ma kaa jox namuma buwaasu namuma ndawal <laughs> ah, lii yëpp gis daal fi bu toll nii fauteuil yi yëpp ña ngi fi kon nag dama ne sama gars yi waa Bargny waa Tëngéej monde entier ñëpp lébu oo na leen si bës bi ah. ndax kii fëskee na na ma kaa daan daan ba gaaw te yow ba soobee yàlla deux minutes la ma wax du ma ko àggaa am. man gënoo maa doon yëbu ma ni. nee na deux waay daa mel ni waxu de dama ci yëbu ci ñëw ci. puutay waay eh puutay. doo puut ma ni yow damaa bëgg na ànd ak day dayay. yeggaguñu ca bis ba. Eh, loo wax ni ko mu ànd ak day yeggaguñu ca bis ba. bis bi ya 14 juillet ya entre Petit Yo ak Bise de Mai. man nag damay fas yéenee daan yëbu mii ngi bis demee ak petit ku ci daan ñu jox ma tu ah waaw waaw paye naa gënumaa dëtt te ndéet denumaa dëtt bàññee ma yambaa yaga yambaay biyam du mbee njëkka mbuy maa jëyee sa yi ma yett ci bay ndëkki namp ko sama weenu yaay su ma daanoo mu tas kenn du ta waaw waaw ku def ko sagaay bu nga yow day taal ah ku defoon bagaay bëgg a yow baa nga sàcc ba da daw avion naaw ba tiim ya ay da daw ba wëy ya ey doo yaboo bañ a daw yëpp jàppees naa ya te yëpp baa ma jàppee dig ma gis baa ma jàppee dig ma gis te xam naa yow tuus bi li nga wax ni ma maa ko moom ndax ka sàcc waaye nag man fi mu toll nii loogu yëpp du ma si àgg non déglu rek loogu yëpp du ma si àgg waaw may waaw may ma loogu yëpp du ma si àgg waaw man tegu ma na dara lébu ba boogaa lébu lébu xam nga ma bëgg ñu bëree ko ci yéen yéen ñaar dem ngeen toog dële ah. bu ñu bëree léegi dugal de ah aja tan demal na rek moom yow demal ne ma dem ne lébu jaaral nii tan jaaral nii la 14 lépp na leer boisson yi mën na maa naan wala. nanal daa jël nga naan. Euh, ñu ngi dem ci ki nga xam ne moo di euh, Boy Diouf ak ki nga xam ne mooy Baye Gora. baa xam nga ni combat bi moo dàq ci journée bi. moo dàq ci journée bi ana Baye Diouf. ñu ngi lay delloo ko bu baax ayca ayca. tante ñëpp su na me daanu na ma xaaj man. mo mënul la ma tar daan. go ma ma maa du ma daanu yen yen wa jam ñaaju mënul le ma daan. dëggoo ma de ki du salam premier combat ko ma Baye me bay gor bay gor yow mbët nga. met ga maa ngi ma mètre quatre vingt nga ma lan. 1 met 93 yak 11 ga yaa ngi un ma de. waaye lan mën naa ko may sax njoolaay ginnaaw bi ñu sant yàlla julli jonante bi maa ngi sant sama ñaari waajur waaw di nuyu sama waa écrit jëm ñaajo maa ngi nuyu sama gaay mee ko ndagal ñëpp bàyyi ma kenn di nuyu sama grand frère Moussa Dieng Daouda Sow Mantour Diop Samba Anne Vieux Bari Maodo Sané Babacar Gueye sama sëfoor fu ma jëm moom yóbbu nek sama chauffeur nek sama sponsor lepp namu ma dara barke Sëñ Tuubaa heure bu ma ko fëggee mu taal otoom yam ma ci lepp lu ma bëgg xam xam nga auto bi da koy ay ay prix damay noos ba karama ñibi ma nga sante bu baax di ko gërëm ko ñaanal bis buñu jëm le 13 dafa war a takk soxna te fete gi duma ko yaax dama lay daan après dem ñu xey kéetal ci kàttanu yàlla feet bi du ma ko yàq booy jum ñu ci gaay yi ci japp dafa guddii booy jëm de nga bay goor a jëm na da nga dëkk waaye jom naa mënuñu daan waaw loolu xalaatam la rek loolu xalaatam la waaye ci kàttanu yàlla ak mbaaxam li ma waxoon rek laay waxaat situation moo ñu boole du làmb moo ñu boole. te loolu laa gëm ba jusqu'à présent fi ma taxawee nii situation moo ñu boole. man yàlla daa def ma dama am situation fondé man su ma yàlla fondé am naa situation sans fondé amul benn situation. Ah, fondé bi nag naa ko forcé di nga naan force. barki Seydina Mohamed mbana laa lay indil mbana laa lay indil di nga naan force force nga naan. billahi maa la ëpp fit. waaw billahi maa la ëpp fit yow. foo foo fekk kuy wax naan maa la ëpp fit di waat tapet la. dam lay linjaayoo billahi dam lay linjaa. Eh, waaw baax na bañ a àgg ci. dam lay linjaa de waaw baax na. bàyyi booy Mbappé bu ñu takkee. man du ma ngaaga de. mënuloon du ma ngaaga. yow doo nand loo loo teg rek naa ko aaba sën. billahi doo nand de. waaw boobu tufi waay. yow ngaaga nga. waxal pare tufi. waaw eh, eh. yow ibaadu nga. yow yow ibaadu la. bay góor a bay góor a. Oh, waaw dañuy déglu nag. waaw kii kii maa ma sëkku ay bay bay ndax ñeme nga xeex booy jum yi. barke Seydina Ahmed arab bi arab suuf la pare. tàng bii du du dëng gannaaw avancement lay def taal bi sëñ Babacar Si du aneer la tàng kanam la am billaahi dama lay duma barki yàlla ba suuflee boo aayul ma dóor la nga daanu soo bëree ma duma la nga ba ca kaw dóor ci suuf lu leer laa def nii de góoma de ku mu ku ñu xaw ak nii billaahi ki ma doon bëre moom ëpp doole moo la ma da góom de amaa nag sëñ jëm combat damaa jum daanu kon yow mii ci boppam yow. billaahi wallaahi doo doog defati. ça ah, va damay tàggu jërëjëf jërëjëf kontaan nañu ci booy jub boo defee rek bàyyi ngay tàggoo comme temps bi xoj na booy jub bàyyi góor ngir yàlla déglu ñu nag. amul fit nga am ay déglu ma dégluwuma amoo fit. <laughs> fit fan la nekk ci wër. fit fii laay nekk ak fii. kon yow xamoo fu fit nekk. ku ma wóolu wóolu ma sa doom. bay góor bay góor nuyoo nga tàggoo nuyoo nga tàggoo bay góor de damay woo sëriñ yi yóbbu génn de bay góor nay mu yóbbu nay mu yóbbu na mu waaw nuyool nga gërëm ku la neex waaw maa ngi sant yàlla bu baax di nuyu sama staff yëpp di ma tekki loxo Moussa Dieng ak loxo Daouda Sow di wax sama fan club yi maa ngi di wooyee ñëpp waaj leen ci kàttanu yàlla ndax dimanche dañuy def bon presse ci carton yalla kon ba ma ngi wo ñepp bayuma kenn goor digeen mak ndaw paré nak di wo sama papa Mamadou moulay Gueye madame la maire yaa ngi dégg ye ndjay ma ngi ko wo bu baax Mor Balde gis na taxaway di wo pap Samba Gueye bis bis sa bis la Babacar Gueye mom ma ngi koy ak yalla mi am fay yalla ko yalla fay may ko fan gudd may ko gëram di sante sama mbokk mbeur yi ku ci melni dabdan bala Lion Cheikh Melax sama gars dal, ma ngi sante ñepp di gërëm ñëpp di sant nag waa Bawal 100 pour cent Bawal maa ngeen di woo ci bés bi di xam ne bés bi seen bés la man seen doom laa seen deret laa maa ngi woo 100 pour cent Bawal gépp Gueule Tapée Médina Diamaguène Pikine tali bu mag Icotaf tali bu bees Marché Zinc bàyyiwuma kenn maa ngi woo ñëpp di woo waa Ngalmbaan xaaral rek may tudd waa Ngalmbaan fu ma juddoo maa ngi woo waa Ngalmbaan Mbangeem Ngoogam Kilmaxa Mexe Reefan Lambaay Kër Mbay maa ngi woo àdduna yëpp di woo waa Kousanaar maa ngi di woo bu baax ñu ñëw dina waa ji ma duma ko dumay miti yow comprendre loolu de di sant nag waa Tëngéej jërëjëf lébu yi maa di dégg maa leen di ah. sama papa Ado Diop mais koy woo waa Morla waa saaw waa noodoo waa mboor ñëpp maa leen di woo ah maa ngi xulluxum yaa madoo maa ngi lay nuyu di nuyu waa ñi toog ñëpp sëy na damay daan jox la ngaa daan incha allahu damay daan jox la ngaa daan ak ñi toog ñëpp ak sama doom day yéen dinaa leen di billaahi wa ay tappe na ngeen dama maa ngi wax aw ñan di woo sama mère mère ame yow di woo sama kenn du ñëw. kenn du ñëw waaye kaay bi waa kenn du ñëw. kaay eh, ma xool li man man naa ko. xam na kenn du ñëw. yow yow kenn du ñëw. bu ma neexee doo kenn du ñëw yow da am booy jum kaay. civilisation n'est-ce sama jaagale fool yi sama maire jaagale fool yi sama 15 maire jaagale fool yi maa ngi leen di woo pour ñu ñëw ci combat bi incha allah rabi. booy jërëjëf danaa la. jërëjëf maa ngi nuyu sama a ngi naan bii neex na waaye xoolal bii combat ñaari xale yu doy waar ñaari xale yoo xam ne ñëpp nangul nañu leen kenn ci ñoom mu ngi wéy ci turu X9 ana X9. ay ca ñu may ko loxo bu baax a baax. X9 mooy daje ak Modou Junior Modou Junior. waaw waaw waaye daj nañu xale bi waay ndeysaan waaw waaw wàcc ci jar mu yaay nga ne ma waaw waaw ndeysaan Aliou Modou Lo Junior waaw waaw waaw waaw Modou Lo way ay ci jërëjëf Modou Lo way Modou Lo nii kaay déet saafara yi nañu puus rek déet ay rek X9 maa ngi la nuyu bu baax waaw ñoo lay fay ginnaaw bu ñu sant yàlla juru bi ñaaru quoi waaw sama waaye góor fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jógee ak ñu mu fa fekk ak ñu mu fa fekkul yëpp waaw di ñaanal sama yaay bu bàyyi ko fi quoi ndax loolu moom ma dugal si laam pour yóbbu leen maaka tabax kër dugal leen si waaw loolu moom ma si dugal bu baax. Modou Lo yàlla awuzu billahi mina seytaani rajim bisimilah inna wali yàlla maa nuyu sama ak ko ñëpp. waaw sànq maa jéegalu nag xam nga rek sama yaram a xawoon na tàng maa jéegalu si kilifa yi fi nekk maa ngi tuub man seen rakk laa seen jarbaar kii nag laam ñu boole bu bëree ma yéenu ko bu xeexee ma dóor ko dinañ ci ñëw waaw ñëw rek waaw maa sant sama waa ko bëri nekk parcelle bi am combat yàlla leen yàlla may ndam maa nuyu ñëpp di sant ñëpp sama waa koñ taxaw nañ ma ko degu fa yàlla inde 16 parcelle Mandela ak Dior maa ngi nuyu ñëpp su ma numee rek damay juum waaw l'essentiel daal combat bi daal sama combat la moy lolo la am lumay wax jeri def Ouzin. ñom ñaar ñofu jitt waye man limi ci jaaxal. xuloo bu métti lañ fi xolo ñom ñaar xawma dañu am règlement de compte xawma lu xew. X9 kay ni modlo Junior kay ni seen coow lu bari yi ñaar lan la lu ko waral. wa du tuubaat quoi la correction bi passé. wa am fe waxon lu ñaaw quoi. wa maa ngi jégalu kilifa yëpp képp ku jigen di yaay quoi. maa ngi jégalu bu baax. waaw maa ngi tuub man xay laa quoi. yaa ngi comprendre waaw xayal du jum juumaat quoi maa ngi nuyu ñëpp nag bàyyi ma kenn. maa ngi waajee bés bi nan ngay waajee bés bi. non bu yàgg. amul waaj lu ñuy dina waaj. wala muy nekk bi di tardé. ma doomu parcelle la. waaw man doomu géejawaay laa yëmbal échec naa. barki alxuraan du nuyu képp kuy yor xiir nag di caw maa lay nuyu sama mbokk mécanicien dóor yi nag. waaw man damaa yor sama mécanicien dóoru mais sama yaay laa bëgg a yóbbu maaka moo xam ne carrément moo loolu lam ñu ci cër na waa écrit wàllu fajaru bu baax ku bëgg a bë mën bëre ñu foofu ñu la Modou Lo Junior waaw gis nga waaji waaw gis nga ni mu toll waaji loo ci dugal xanaa gisoo ñi champion yi ma àndal ay yow ñëw nga écrit sa ñaambur gis nga ay Bécaye ay Albouri gis nga gars yi fa nekk ay top doo wax ci kii kii amal leen lu may wax moom parce que kii nii man guuxuma ay ree la ma def barki Seydina Mouhamed wallaahi al azim kii ay ree la ma def parce que xam nga la ma dama la ko xamuma bu ma xamoon du nekk di comporté amaana daa bëgg a bokk moo tax muy action di zongale di saale waale bëre bi arbitre sifflé ma linjaa ko mu xeex ma dóor ko mu wàcc mu bëre ma yenu ko billaay wallaay taala nee na ma léegi nee na ma léegi ay petit loolu laay ko taagal kii dama xoo kii ma léegi jël bi gën a rëy ci bés bi waaw moo la koy daan xaa déggoo ma li ma la wax loolooy ba maal pël la làmb ji day gaaw man du ma arrière te arbitre damay dox ñëw nga ne hmm. maanaam kii kii du mbër kii bëgg néeg la ci mbëri lay toog nee na arbitre foo nekk du mbër kii bëgg nañ la du mbër si a mbëri lay topp. barki Serigne Saliou Mbacké laa musuma waat si làmb. licence la wala kii musuma waat si làmb. mais bërëb bi maanaam nu muy daw. ki nu muy daw defoo fi dara. yow defoo fi dara ngay actionné di tagg sa yaram di saale waale doo yam yow. yow loo def. defoo dara si yow la may xamee. boo ko waxee waxoo dëgg. wër na yàlla parce que man dama lay daan. la ko doon yow la ko dama lay duma daan. yow kanam bu ngande nga ma ëpp. kanam bu ngande. ma x ma ay teel na si laay doxantoo. xaaral nga dof yow. maa la ëpp doole. su fekkee ma la doole yàlla bu ma jëlee. yow kanam bu ngande nga ma ëpp. yow moo tax ma la naan wéeroo. sànq mi fi toog nii lan la bu ñu simee ko ci géew noonu demee nag. yow sa bopp. da ngay taxaw fenn da ngay taxaw maa la ëpp lii doo dem din ya da ngay taxaw si benn man ba ma taxaw lay wax yaa may taxaw nga dëgal sa bopp ma nekk la boo dëgalee sa bopp dama lay lekk barki alxuraan man sambaar laa doon sambaar laa dama lay lekk bu nekkoon mbayaara bu nekkoon wala xool doole fi si la dama lay lekk nga bu nekkoon mbayaara mooy loolu mais bëre bi moom li ma koy wax démb loolu laa koy wax tey mooy bu dëgalee boppam dama koy dóor mu wàcc bu bëree ma yéene ko barki Seydina Muhammad maa ngi ñaanal waa parcelle mbëri am combat yëpp yàlla may leen ndam ñang baalo daam seen ñoom ñëpp ay petit lo ñi ma fi nekkal bombal Grand Médine waa Grand Médine parcelle képp ku si am combat yàlla la yàlla may ndam maa ñaanal ñëpp waaw yàlla may leen ndam may ma ndamu seedi guy ma dóor ko mu wàcc wala ma yëre ko moom X9 Cheikh Niang jërëjëf x ñu bàyyi la nga waaw maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu Massa Bees Géej waaye sëñ Assane ñoom Omar Sané sama patron mécanicien maa ngi koy nuyu seen Touré ñoom algaas ñëpp maa ngi nuyu aw Diop sama yaay maa ngi koy nuyu xawaat dawalaa maa ngi nuyu sama jabar la maa ngi koy nuyu bu baax bàyyiwuma kenn sama mag Ousmane Ouskara daa am combat sama mag la moo nàmp joxuma nàmp mook tafa leer numéro 2 jërëjëf hôtel yàlla na ko yàlla may ndam Ouskara gannaaw suba lay bëre yàlla na ko yàlla may ndam hôtel le 10 juillet maa ngi nuyu ñëpp di woo ñëpp nag bàyyi ma kenn sama gars yi ñoom jon ñoom ñëpp maa ngi nuyu ñoom wat waa Fann ñëpp gétt ba ñoom Demba Ama ñoom Amadou ñoom Pado bàyyi ma kenn ñoom Mario maa ngi koy nuyu sama kësu bosu bi maa ngi koy nuyu baax Mario ak Carlos bàyyi ma kenn maa Abdou ñoom Do bàyyi ma kenn maa ngi nuyu ñëpp mooy loolu jërëjëf jërëjëf waaw waaw waaw waaw loolu ko mooy bëgg la mais Ousseyn mais scientifique jëm mooy ci dëkk bii nga xam ne fi la nekk te muy dëkk cosaan di dëkk Papa Jóga Jeng ndeysaan ñu koy jaral fa mu nekk yàlla nga fa jàmm ñu bëri fekk macha allah alors mu ngoog donc mu di seeni bu baax yi ñu may ko loxo ana seeni bu baax yi seeni bu mooy daan daje ki nga xam ne moo di Lansane numéro 2 Lansane numéro 2 ñu may ko loxo bu baax Aïcha Aïcha Aïcha aja bu dee combat bu waaye comme ci ni nag moom dañ koy bàyyi mu dalal ki nga xam ne moom mooy la ñu ah ñoo lay fay sant yàlla judó sant suñu ñaari wax di nuyu ñi fi toog ñëpp ah di nuy waa presse bi tamit waa TV TV yëpp di nuyu waa Diofior waa Yoff yéen ñangal sindu minam di woo ñëpp ndeyaa di woo ñëpp dëkk lébu yëpp di leen woo di nuyu waa kër papa bokai. Dieng ñi toog fii sama mbokk yi di leen wax ne nag combat bi seen combat la tike yi ngeen jàppale ma si pour ndaw yëpp dem stade ñu feesal bi ñun dalal di ko nuyu tamit jërëjëf Lac Sané numéro 2 ne lay dalal maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay waaw alhamdulilah bisimilah ina wali yàlla jërëjëf Serigne Touba ñu ngi siyaare ñu fekk ñëpp di siyaare waa kër Père Ndiouga di siyaare promoteur bi di siyaare ñu ma àndal Bébé Xarañ di saare waa Géejawaay gi ma jugee di siyaare waa Bargny tamit waaw di ko nuyu sama adversaire daal waaw. Leng xam nga xale li ngay bëri tëj na mbapat yi. Hmm. avance bi dugg na ci kër yëpp génn lu tax Leng Sané jël ki nga xam ne mooy Siniou Bargny. non bëri rek moo tax ma jël bëri làmb mooy sama métier aw ma beneen métier bu dul làmb. man aw ma ku may calculé. yi kenn ñëwul. wallaahi ma ku ci àdduna ci bëre. aw ma ku may calculé ci àdduna ci bëre. na mën a bëre na mën a xeex mais man lu ma mën dinaa ko indi si kattan borom te maa ñaan yàlla yàlla ma yàlla may ndam. xam nga ni jël gis naa ko maa ngi koy félicité bu baax ci mu jël di ko ñaanal jàmm mais yàlla ma yàlla may ndam ci kawam incha allah walaay ñaan. Sidi dégg nga Leng Sane nee na moytu la faalew la. lijjantiw la waaw digganoon ko si moom digganoon si moom li mu wax nee na moom man moo moo gën a nekk xale tamit loolu la ma wax waaw ah da ngaa demoon gisement bi ngay wax loolu xale bu ndaw laa fekk bu ma sa si nen bu bees wax man sante ma la dara taxawal rek laa la wax taxawal nga dëggal sa bopp may bëre may xeex maa lay jàpp maa lay daan insha allah sili siili li ngay wax yem na lool sili Ndeye Sane ñii nee na la pour xullee de dalaa jël pour daan la de waaw ah, man xale laa de moom maa maay wut yoon te moom moo may wan yoon yi si moom laay xamee yoon yi dama koy jàpp daan ko samay morom jël ma samay morom yëpp dañoo dawoon avance bi maa ngi koy sant di ko gërëm si loolu mu jël avance bi moo may changé dama koy nangu loolu moo may changé wante bu bés baax ni nga ma ñi ma ñëw ba jël ma taxaweel noobu boo foo taxaw maa la fay fekk halala laa du may xalaat kenn du ma conseillé. Siri Siri Siri ndax xam nga ki nga xam ni mom moy lan Saar numéro 2 ndaanal mom moom lu def ci lamb ndax xam nga bu baax. wa ban ni man lañu yaakar man dama ne wa ban ni man lañu yaakar ko man duma def lo xamantene wa ban ni dañ ma siy xeeb damay ñew li ma wa ban ni yebee lo lay indi mom lay def jàpp ak daan ko man nee ban ni bu taxawé wa ban ni bu taxawé ci si biir stade bi ma mobiliser waa Bargny gépp gunge ma rek amul mbeur mu may téye. roi bi kese ma dese fi mu toll nii roi bi kese laa ameel waa Bargny wante lépp lu mbër di defal dëkkam defal naa ko sama dëkk fi mu toll nii roi kese laa leen desal te incha bu neexee yàlla dama koy indi te kii dama ko tere indi. waaw yow na yow paa yàgg ci yoon bi na puusoo paasoo nee na da ngay taxaw rek mu fekk la fa jàppale daan la loolu la wax la lu mu wax loolu moom nee na waa Bargny ma leen desal roi de Sérène. moom daa bëreegum dara bay defee ba waa ba la ñu roi des arènes mu amagul cinq combats yi sax booy ñëw cinq combats sax amagu ko xamul na comprendre yàlla baax na waaw booy déglu ñëw CEDEAO champion d'Afrique kaay nii kaay nii champion du monde kaay nii lépp yàlla na la jig si kattanu yàlla la 14 dañuy bëri si kattanu yàlla te yàlla ma yàlla may ndam yàlla jël lépp mais dama koy daan si kattanu yàlla ah, du fiire na eh, ah, bi ngay wax loolu tiit waa bër ñi dina taxaw si dina nekk si stade bi may tiit si yow dama lay téye dama lay jàppoon lu ma neex laay def xale laa am naa doole tamit man lu ma téye maa ko moom man du ma nit. man mag laa may am naa doole. moom xale la. yaa ko doole si xale bii de. moom xale la man mag laa mais am naa kattan. xale bu bëri <laughs> am yàlla kattanal rek incha allah rabbi. man sama morom sama téewante moom dama koy fel sànni fële saakatuma laa paa. comme paa bu taxawee man man santewuma la dara duma la dóor du ma la def dara naa la jàpp rek. ma loolaa sant nga taxaw ma jàpp la. man nee boo taxawee. du man du ma ko dóor mais naa ko mbéjee. booy bii non dafa commencé am lu muy wax ni dama koy mbéj. Ah? waaw ma ragal ma baax na. ma ragal ma dara man du ma man ma arrière. aw ma tànk ginnaaw. man sere lii de fas laa de si kanam rek laa jëm du ma arrière. bu ma daree arrière waaye eh, Lang Sané. bàyyi ma jàppale la rek jërëjëf Lang Sané kontaan naa ci bu baax a baax sii nii. kenn ku nekk wax na lim bëgg. te amul lu xëccoo am lu xiiroo ñun lii lañ soxla gis ngeen man mi téye micro yi nii aw ma doole mënuma àtte kenn kon kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax a baax a baax ndax ay kilifa ñoo fi nekk bu ko defee Lang Sané eh, ñu bàyyi la nga tàggatoo woote. mais maa ngi sant waa Géejawaay gi yëpp maa ngi sant sama grand koto xaye di sant Diegane Sané sama entraîneur waaw di sant Iba Boy Thiam le lambu xama bas sikim ñepp ma leen sant bu baax di leen gërëm nuyu sama waa koñak gis naa ni ngeen may jàppale ma leen sant bu baax di leen gërëm waa minna ma leen sant yéen ñëpp oma seen fay sant sama copain bi ma àndal sama rak bi ma àndal muy bay ba xarañ maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaan na ngeen ma jàppale si combat bu baax a baax seen bu bari ma defal ko bagage incha allah ay jërëjëf jërëjëf si looy tàggatoo waaw di woowaat waa ñi rek di woo monsieur le maire mu jàppale nu si wàllu ndaw yi pour ñu dem esap. ñun soxlawuñu dara man dama ne man sama jàppale bépp leen kese la na nan nu may ay kaar ay kaar nan nu ko may ay ticket ñun ticket yi kese nu ñor parce que booy yëpp daa dama bëgg ñu dem esat te booy fi mu toll nii dëkk bi doxul gis nañu ni mu demee kon monsieur le maire noonu jàppale central bi tamit noonu leen di woo di woo waa kër Papa Ndiouga ñoom Momo Dieng ñoom ñoo Dieng ñoo di leen woo yéen ñëpp ngeen jàppale nu si ticket yi boo leen di jàppalee si tigga yi rek ñu kontaan parce que nun loo moo ñor doon bëgg waa ban ñu mobiliser nekk si stade bi ma jàppale nga saane daan ka di woo tamit wës wës tamit jàppale nanu bu baax ko moo nu jëndal bologu bologu tigga loonu jëndal nanu may nanu ni ñetti kaar pour ngeen dem kon leneen luñ si tegaat ñu jël di leen wax gaa yi ñu ñëw teg ñu loxo ñun loo kasi moonu dese gars yi teg ñu loxo ñu dem jëli li ñu bëgg a jëli incha allah jërëjëf jërëjëf kooku mooy déet déet non may leen ba ko waay. déet déet déet déet déet déet déet. bu du woon waa CNG. Elimane Lo Elimane kay atte ñi waay. booy yaa ngi maa yeb de. déet yaa ngi maa yeb de. yaa ngi maa yeb yow. ah déet. am na lu ma rus de. bu du woon waa CNG yekk naa yeegu yàgg. laa ilaaha illallah. aywa demal toog ah, demal toog non di ma wax benn affaire. waaw gis naa date bi. Hmm. ala mab date. bés bii. alal ma bés nañoo nañu gém boo bëree saa su maan du tere bëree su mi leen weesee. kaa ngi ragalante nanoo yaa. nañu gém boo bëree wàllu yaa du tere bëree. xam nga xam nga mbir mi Elimane maa ngi la gërëm di la sant ndax la tax wax loogu Elimane daf ma boole ka xamante ne dama ko xiifoon mag na xiif gis dama laa lekk dégg dama laa lekk yow da ngaa bu dee sa téye bii nga seex mooy wax yow. <laughs> ay waay ay waay non xam nga man la ma gën a métti sax si mbir mi moo la saa saa ba ma naree non booy bii ma xol mu ngi kaa yëngal quoi. noppi man. non xoolal man mënuma ànd ak istibet. Euh. ànd ak tampito. moom ah, ah, ah, tampiko. Eh, ñun ñëpp noo moom tampiko. gis naa. yow man fii ñëpp fi nekk yor tampi man sama yaayam bii nga gis amul dayet yëpp tampito ya yow booy yow booy yow da nga dof nun géej gi sax tampiko la nun géej gi nga gis nii tampiko la te nun ba nu añee foogu la noo raxasoo bu noo ñulug foogu la noo ñulugee eh, jërëjëf ah. Ah, ah, jërëjëf ah dafa am lu maa wax rek maa ngi gërëm may mbokki lébu yëpp di gërëm waa Bargny di gërëm waa Tëngéej di gërëm ñi nga xamante ne moo la jokkul gi maa yeewoo. waaw te booy sama nag. booy bakka nga njaag. booy man yëmbay nga njaag. waaye yëmbal ay ay tapet dafa nekk booy sama nag. Eh, waaw bàllee ma de waaye yëmbal bàllee. booy yow tapet pire nga. leen waaye ah xoolal may leen ma ko may leen ma ko xoolal deux minutes la ma wax ba fekkente ne aw mii deux minutes daanu la si ma xoolal mab kase xoolal ba leen ma ko jox maa ko wax fii deux minutes mab kase mab kase ba leen ma ko jox deux minutes la mu la wax ba ma la daanulee mab kase per per ma ko. waaw deux minutes jërëjëf boo ma daanulee ñu jox ma sa tase yow. jërëjëf jërëjëf Lébu Lébu dinaa ñëwaat ci yow Tan Bombay jërëjëf. représenté li nga xamante ni moo di CNG alors ku ne xam ne ni CNG dañu ñuy gunge ba ci face à face yi merci beaucoup monsieur Cheikh Ndiaye moom la ñuy dalal daal di ko jox kàddu ñu tàcc ko bu baax a baax monsieur Cheikh Ndiaye de CNG. waaw sama xarit ak jërëjëf borom xaalis bi ci man. maa ngi lay nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di rafetlu assistance bi toog fii yëpp di remercier aussi euh, le euh, Elimane Lo promoteur PDG Elimane Lo ci initiative bi mu am nii voilà léegi rappel rappel la rek quoi rappel dañuy rappel rek mbër yi kenn amul droit laal sa morom CNG bi li mu fi nekk yëpp loolu kese la kenn amul droit laal sa morom assistance bi nekk ne li ci gannaaw accompagné aussi nañu seen yoon new ci di xew fii wax agent bi sànq na ku ci waxatee rek na ko génn ci biti voilà ñu ñaan yàlla kon ni ñu ko commencé ci bisimilah rahmaani rahim ñu yeggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin mu jeex jàmm ak salaam ñëpp ñibbiwaat seen këri ci barke Cheikh Tidiane. jërëjëf jërë ngeen jëf ngeen baal du ma ci guddal quoi. jërëjëf di combat di combat bu doy waar je papa bu ndaw ak ki nga xam ne moo di boy plateau papa bu ndaw et boy plateau ñu tàcc leen bu baax a baax ay ci

jaram Cheikh Ahmadou karam bakki Noreyni jarala am bis ba karam fa di nuy assistant fi nek fi yëpp sama wayay matu ma ngay nuy bu baax xama di nuy njabootu sama mam Juga Jeng waaw di nuy sama njabootu sama mam Juga Jeng xama di len wax li combat bi combat jege ni la waaw man jeng la sant combat jege ni la waaw di len ci wo bu baax nak seen da ngay profito rek la ko di woo ñëpp përi loolu dañoo ñu face à booy passé la dëgg dañoo ñu face à face. Petit Lo déggoo kaay. non yow soxla ma la Petit Lo ñoo ñu face à face. papa bu ñëwul li ko téye yàlla nekk jàmm. loo koy wax. non yàlla yàlla def jàmm rek. koo koo. yow itam bala nga dee dégg ndeysaan ñoom ñoom ñoom ñoom dañoo war a jël ndeysaan famille ñi quoi famille ñi ils sont très responsables ñoom ils n'ont pas responsable moo tax kenn du la respecté ba da ngay am respect maa ngi moom bëri wuñu lu maa ngi moom xaw ma ko sax barki alxuraan maa ngi koy soo gis te du débat quoi di non di nuyu sama papa Kempes sama papa Kempes sama grand bés sama staff bàyyi ma kenn waaw man mbëru dëkk laa xale laa mais mbëru dëkk laa papa bu ñëwul waaw mais am ma man koy wax non man xam lu koy téye yàlla doon jàmm rek ba subaa moo bu solo ma wax dara ci ginnaaw man góor yàlla laa man bu may wax doomu aadama dara rek ak yow di nuyu limaan bu baax waaw moom promoteur jàmbaar bu nekkul woon moom xaru tabaski du ma ko am ah? waaw boobu la ñëw di ko sant bu baax a baax waaw di woo sama mbokk yi nag sama mbokku bambara yi sama mbokku bambara yi sama mbokku ñaambur ñaambur yëpp maa ngi ni woo si bés bi yàlla yàlla def jàmm rek incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf day sant. doy waar la bi si boo jógee rek ba ca toppay gën a neex alors bi ci topp mooy opposé ki nga xam ne moo di Fils de Mbaye ak ki nga xam ne moo di Douglas ay ca ngawal Fils de Mbaye ak Douglas. ani rek maa ngi lay nuyu bu baax. waaw ah, Badou maa ngi bu baax a baax a fekk ñëpp Ilimane maa ngi lay nuyu hmm. ak média bi. Fils de Mbaye Guèye daa mel ni Douglas ñi mew la de. Ah, waxoon naa la ko nee la du ñëw chaque jour ma ne la du ñëw fu ñu munti tase du ñëw waaw waaw. mais le 14 dina ñëw. ah na ko iliman teel woo moo gën de. iliman di jënti loolu. na ma ñaan bu ma ñaanee nag fu mu ko woo dina ñëw. waxoon naa la rek. ba ñuy def soti nee ñëw su ma teggee sama tànk mu ñëw mais tànk yi bés moom ñemewu ma ñu séparé. waaye tey jii nag ko defee dóor ba mu mu ngi lay si waaw ñëpp bëree lañ ma xamee nag. lamb ji yëpp daa mun a bëre daa mun a bëre bii xeex laa indi. kon bii doo bëri. non damay xeex. waaw mais mais importance combat bi xam nga ko. combat bi taxaw na coow li bëri diggante Pikine ak Guédiawaye ma gis benn vidéo nga taxaw fële mu taxaw fële ñaan ngeen di xas-xas loolu lu sax jàmm si tali bu ñu séparé. ah tali moo ñu séparé jàmm amatul foofu. ah man neex laay jaar doomu laa. Mhm. waaw na njëndeew ñu ma xaalisu laa ma ne ko da ngaa juum. sama pap mbër la sama turandoo mbër la sama rak pap mbër la. xam naa sa turandoo ak ko mën a bëri. Malaw Seras mooy sama papa bu ndaw. ah Mbaye Gueye sama baay. Xaarim Sarr mooy sama turandoo. waaye kii bu nekkee mbër wàcc na waay. man sama lépp mbër la. lépp man fo jàpp damay bëre. te wane ko ba média bi xam ko. deug la saison bi amna 5 combats 4 victoires ben défaite ci ben saison bi ma fi dakk beure jël bu gëna a ya ko dal jël bu gëna ñaari jël yi gëna a saison maa ko daan pour te dire boo mais comme doublage ñëwul dañ lay bàyyi rek nga woote tàggoo. ah maa ngi woo waa Pikine comme Pikine laa dëkk nit ki amoo lu dul fa nga dëkk ku ne da ngay tiitaroo fi nga dëkk mais sama papa mi ngi ba yëmbal buun di nuyu Bib Diop waaw borom yëmbal ah di leen nuyu yéen ñëpp di waa yëmbal si làmb ji nag di woo waa Pikine ñoom ñëpp jàppale seen dom fils de Mbaye Gueye comme dab rek ñoom moom bu arbitre sifflé rek. teggi naa leen ko mun nañ préparer génn dem sibile xam ne comme noonu la koy defee rek biir yooyu bii fils de Mbaye Gueye la day bare ba si kaw. dégg naa bloc yu bëri ngeen waa mais noonu la mobilisation bi des na sax dama bëgg billet gën a yokk ndax man lu ñuy jooy si mbër mu ngi si man man damay jeexal làmb man CNG xam nañ ko man sama làmb deux minutes la du ko romb te deux minutes bi day fekk adversaire bi daan an mais sama làmb une minute la man. ah man dama koy yombal supporter yi prix ma japp daan dem jeri jeuf kontan na ci yow di gërëm Ilimane Lo nak bu baax. wa ah, di wo Rama maki Rama maki Sall ma ngay wo ah waaw Dóor suñ papa ji fa nek yalla nako suñ borom bi gene wa di wo ñom ñep di wo wa pikin awo Baldé waaw instant signature fi ma nek la nak yaay ni di jaxaru man di wax ak man signature bi fi ma nek la mais waxon nga mo ma ñëw 22h mais heure bi la. wa fi dafa sori suba na fa ñew nga japp ci bologu bi bu baax demu wo nga ma telephone nema dig di ma jappale si bologu bi mais lu mu guddi guddi tamit dina jegi so néeg feug la nga jàpp si tigéey jërëjëf wa di wo ñëpp nak wa di woo waa Bargny tamit di len nuy ndax dalal ngeen ñu wa si lepp wa di ñaan yalla mu sax si Bargny jërëjëf jërëjëf jërëjëf kooku mooy fils de ni Ouzin ya ngi dégg xalé bi nee Boy sar moy turandoom Malaw Seras moy papam bu ndaw mbey Gueye ci moo moko jur kon mom suma ne mbir mi wacc na comme nu ma war a mobiliser jàpp daan su neexee suñ borom. maa ngi ñaanal nag Bib Diop daa war a bëre le 28 maa ngi koy ñaanal ndam si kaw Naar Sogas Cheikh Baare daa war a bëre maa ngi koy ñaanal ndam Baba Jaxal daa war a bëre maa ngi koy ñaanal ndam Laurent suba day bëre maa ngi bu seddu guy moog Zia Baye Fall ak Armé Dieye képp ki yow jaamu gën si kàmbaaw soo amee combat yàlla na la borom benn si barke Seydina Muhammad. waa Barou di gën a santaar rek. nga xama ñun amuñu lu dul sam-sam ndax sam-sam lañuy yeew ba na ko dañoo bàyyi tur yëpp tuddee suñ boobu fils de sam-sam kon dañoo juumoon rek ñu ngi jégaluwaat sam-sam bi yëpp di wax na man ñoom laa am mënumaa am lu leen sut ndax sam-sam laa juddoo fa laa yoroo maa ngi tuubaat du jégalu lu jotoon am bu la paase maa ngi siy jégaluwaat baax sam-sam maa ngi leen woo si làmb ji bu baax a baax a baax baru di sant Moussa moo xam ne moom laa àndal ak àlla sama chauffeur maa ngay sant bu baax di sant sama mag maa ngay sant bu baax di naar bi naar bi maa ngay sant bu baax moom day jàpp amadi naar day jàpp bu baax a baax ay nag lay jaay seeraas la nekk maa ngay sant bu baax baax Jaw maa ngay sant borom frigo yi maa ngay sant bu baax lu mu jaay si frigo bu baaxul ak ventilo maa ngay sant bu baax a baax Mariama sant sam-sam bi yëpp yow sam-sam rek jàmm gën si kaw mbaaw Kër Masaar buum benn baraak ñàgg waa mafia namara bi maa ngi leen woo ma waa mafia sorabe bi maa ngi leen woo bu baax a baax maa ngi woo ñëpp joxaat gars mobilisation bi fa laay mujjee quoi mobilisation bi waaw maa ngi woo ñëpp képp ki bëgg Fils Sam Sam rek maa ngi lay woo si làmb rawatina Boy Naar koy woo bu baax a baax maa ngi jégalu ñëpp di jégalu assistance bi yëpp wasalaam jërëjëf. social ak ci domaine yu bëree bëree bëree bëree yoo xamante ni mu ngi ciy dox. kooku nag dafa nekk directeur école boo xamante ni chaque année dañuy am cent pour cent est-ce que loolu yomb chaque année nga am examen cent pour cent badu loolu yombul loolu rëy na kooku ki nga xamante ni moo di l'incomparable l'infatigable l'homme social muy ki nga xamante ni moo di monsieur Abdallah Faye directeur école Daaru Karim ñu may ko loxo bu baax a baax a baax kooku mooy ki nga xamante ni moom moom moom drapeau muy monsieur Abdoulaye Faye wàcc si ñëw bu ko defee jàkkaarloog Badou ayca. ayca jërëjëf Ousseyn mag ngi lay kontaane bu baax a baax monsieur El Hadj Faye dégg naa ndaw la guddi la foo laa ko denc Abdoulaye Faye ayca ñëwal ñëwal waaw waaw. jëf ni ko Ouzin waxee léegi am na solo kon dugal bu jagle yàq ndongo daara ngeen xam ne drapeau ki ngeen di bëri jàmbaar la kon bés bi yéen ñaar doo bëgg ngeen wane ci jom ak jàmbaar ak fulla ak fayda waaye Ouzin bi may tàmbali léegi maa ngi ne xale bii bi nga xam ne moom mooy ndongo daara moom mooy Roi des Arènes ca Louga mu ngi nii kii mooy Roi des bu Louga moom ndongo daara ndax daan xale yi Louga yëpp waaye ku muy dajal nag ah kooku nag moom mooy doomu jagle bi di duubal bu jagle di ndaanaan def ci làmb lu nekk duubal dama lay bàyyi nga dalal ki nga xam ne moom mooy ndongo daara maa ngi lay nuyu bu baax waaw Badou maa ngi lay fay aouzu billahi mina rajim bu ñu santee yàlla julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur euh, di nuyu waa plateau bi yëpp euh, di nuyu Eliman di nuyu Moussa Faye bu baax di nuyu képp ku yeewoo Tëngéej rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu bu baax grand tala bi nga xamantene mom la andal fi di nuyu ñom Baye Moussa ñom Kang euh di nuyu na quartier bi nga xamantene fofu la muy Guy Murit di nuyu bu baax tonton Dia di nuyu wa kër ga euh di nuyu sama tons Abdou sar di nuyu bu baax sama grand Biram di nuyu wa AIC Manko bi di nuyu euh, di jël nuyu bi diko loxo Kara di dem ba Saalum di nuyu salum Saalum rawati na tundu ñafé ñafé di nuyu sama dëkk bu baax waa jagle maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sama staff euh, di si jiital nuyoo bi Moustapha Sène di ci teg Amadou Sarr laay kade Pape Pape Sarr euh, Abdou Ngom di nuyu bu baax sama mbokku séeréer yi o fogole séeréer maxey simna nuun to joka nuun a njal tam nu xa séeréer a refna rek maxey simnang to xooyang nu combat ne inchallah le 14 juillet roogo yàlla fiyana in ndam i féete in roogo yàlla fiyana in ndam ka moƴna koy waaga inchallah jërëjëf jërëjëf duwal bu jagle loolu am na solo nongu daara ruwa nga de comme ni ko Modou nekkee nongu dara ma ngi lay nuyu. waaw auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaaw bu sante yalla jiru ci yenen bi sante suñu ñaari wajur di nuyu wa barñi gi di nuyu Iliman Lo jambour production mi nga xam si moom mënuñu fay ndax mbor su ba gis ko teugër rek jox la avance rek kooku mëno ko fay di nuyu sama mbokk mbori dong fi nekk yépp di nuyu wa lugo rawatina sama staff staff ndongo dara sen fay yalla yalla taxaw na gis na ni sonna ci man ñoo ngi jëf coono bu ne pour man ay mag jëmm xale bu ndaw di dem ba seen lépp ñuy dox topp sa gannaaw loo bëgg ñu def ci kooku mënu ma leen fa yàlla ne suñu ñu séentu ci man yàlla ko gis waaw lu nuyu sama adversaire di wax ne làmb la lu ñu fi teew ñëpp nag jërëjëf loolu am na solo Elimane lii rek mën na doon gannaaw combat bi ndax ñoom ñaar ay ndaanaan lañu ay bërikat lañu waaye nangu dara kii maa ko doon utal combat waaye koo o mu ne yii dóor bu jagle daa saf lu tax nga jël duwal bu jagle ndax xam ko bu baax waa tamit di nuyu waa kër Ndiayloo kër Daouda Sarr ma seen fay di la nuyu di ko jox sama loxo sama teg ko loxo grand Cheikh ak jabaram ndax yor mbër dafa metti quoi li ma wax ak instant rek ku ko yor sa kër di ko jox muy lekk naan rek kooku mënuñu laa fay hmm. noonu leen yàlla na yàlla bàyyi seen kanam fekk suñu njëriñ ak seen seen njaboot quoi ki non kii li ma koy wax mbër la mënul saf bëggën ma bëggën ma saf hmm. mënul bëre lu ma bërewul hmm. waaw mënul bëre lu ma bërewul mënul bëre bis bu ma ul. Mena la Dakar dañ maa xamul mais su ma su ma teeloon a xam mbëri yi bëri gën a ko mën a ak ñoom ndax li def li def ci li def ci combat def waaw mais dama fay dugg si nag. Ndongo Daara yaa ci ñaata combat. bii mooy sama treizième combat. ah bii mooy sama treizième combat waay tàccu leen loolu waay. bii mooy sama treizième combat te benn ci am sama premier combat laa ñàkk. yow de jeexal nga Louga. waaw dama bëgg non xam nga xam nga question jeexal sax làmb la rek ay mbër suñu dajante du yomb foo ñu jëflante mu neex ku daan loolu laa gëm waaye xam nga xale bi. waaw mbër la xam naa ko mbër la. ma sàcc wax la. <laughs> jërul sàcc di ma wax <laughs> man ci dëkk bi laa dëkk di dë dëkk bu beneen dëkk de Sénégal gi laa dëkk de. yaa ngi koy si naan. maa ngi koy si naan man déggul mu wax li def laay def rek. Mhm. li muy def laay def rek. lu mu gën ci bëre. du ma ko xam moom. man sama ah. man xale bu ndaw am kàttan di portol di sama morom tool di góor gu mu mat sëkk di xool nit lu mu lol sama ko defé sama wa keur bo ñu ray ma de. mais état de forme bi ko yor nii gëm nga ni mën nga daan double bi lé la ko doon yàggatul la ko doon yàggatul dimanche bi ñëp dese la maa ngi ñaan ñëp li way mëna japp nang ko bay nga ñëw état inshallah rabbi ndax bis bi dafa war réussir quoi ci promoteur bi man di wax di wax lu wo walu wo loolu dañ ci ñëw. wa dama ko loolu dañ ci ñëw may ma yeggale bu ma dagg. di wo waa Louga Louga jéen wo leen wax ni bis bi dañ ko waral dañ ci war a def mobilisation bu doy war ndax bee paase bi ñu estade def nañ ko dama bok ñu tollanti ko di jël Louga di jël Ousmane Père Ousmane Ndiaye Sall yow la jital nuyo bi di sa loxo di wax boy bi si ngeen daan may dama bëgg ñu gën ko yok ñu mëna ñew ñëw loolu laa bëgg après ñu dogay studio double bu jéglé dégg nga bi moy wo kong bi Badou man bama dé xalé ba légui musuma dégg mbeur bu dëkk Louga ah kon ki su nekkee roi des arènes Louga kan la don kan la daan Louga nee na treize combats def ñim daan Louga laa bëgg a xam yan mbër la daan ba doon roi des arènes. daan na guy bu njaaj. man nekk naa xale ba toll ni ma tollu musuma seetaan sax combat bu ñuy bëree biir Louga. Ah. ñun fi lambu sosoo lañ dëkk. doon ay doomi séeréer. judoo ci làmb màggee ci làmb ba doon li ñu doon tey kon nekkul kii moo ma jaaxal ci làmb te waxoon naa la ko bu dee kii moo ma war a jaaxal ci làmb ma tekki sama ngémb ah. ñi may jàkkaarlool ñoo ko dàq bëre ñoo ko ëpp doole ñoo ko man kon man lii dama koy sante yàlla bu baax parce que man wóor na leen ma ay adversaire ba sonn man biñ ki bi bi ma waxee gars yi am naa combat xam nga liñ njëkk a wax ñaanuñ sax ndam de dañuy ñaan yàlla bu mu delloo avance barke yonent bi loolu lañ ñaan ñu ne yàlla bu mu delloo avance bi ma ne looloo jarañaan kon nag dama koy sant bu baax mais sant bi yëpp fii la yem suñ demee si biir géew bi ku moon sa moroom naray dégg waaw dafa am lu mu wax rek nee na ba mu gisoo ba tey mu gis mbër bu dëkk Louga soo demee ay ancien gourwaar nga fa ku xam Sega Sifour làmb ku xamul Sa Njaxar dégg nga ko ma Yoro Faal xam nga ko ma Raka Dieng ku ko yëgul xam nga ko ah ñooñu ku leen déggul xam nga leen Louga as ah, mais nit ku ne fa nga dëkk fa ngay defar dara nit ñi xam la man fu ma dëkk dama faa def dara nit ñi xam ma ma fas yéene ñëw fii def fi dara yaa ngi may dégg man noonu laay doxee waaw loolu yëgguñ ci xam nga du ay wax loo bëgg waaw dama koy wax li muy wax nii du ay wax sooy daf may weer dafa ma daf may weer la ko dox si yàggatul affaire bi du wax jëf la arbitre dama lay wax rek waaw dama laa man jëfkat laa man jëfkat laa man damay def man wax lu jeff laay def jëf lu bëri sama combat yëpp gars yi dañuy attaqué may noppi te su bés duñ wax man damay wax damay jëf te lépp lu ma la wax fii xamale dinaa ko jëf man du ma pare du so pare soo bëggee waxal wax moo ñu fi indi waxal nga may wax soo pare pour lan may pare gis nga ndongo daara bu gis naa ko bu baax am na doole gis naa ko bu baax nel am na volume bul jaawale volume ak doole ba du kii bés bu ñu duggee ci géej gi balaa dina ma tóojal incha allah. nee naa amoon doole de. dama la ne saaga yàkkamtee xeex la la ko dox si yàggatul lu wax ji bëri bëri jërul muy bëri nan bàyyi ba at bi dugg suñu diggante ba génn. maag yow doo nga koy des daay ñëw mbapat suñu côté. premier tour la yem premier tour xam nga li ñuy wax lëwal lëwal lañ koy def. laaj ko lim fa ñëw yëpp ndax ah, finalu na léegi dama koy laaj laaj ko kolol koy wax seen côté laa ñëw laaj ko loolu nag imam fan laa ko jëlee laaj ko loolu man nag imam fan laa ko jëlee ban drapeau nga yóbbu ak fan dama rek dama bëgg déglu man nag imam man fan laa ko jëlee internet yëpp ñu fi drapeau boo yóbbu nit ñi gis nañ ko dama man imam fan ko ko yow lañ koy laaj am na xam gis nga yëfi man duma daw duma duma daw dama lay wax lay wax man duma daw dafa daw catégorie lay def man def ren la may doy xam ci àll boobu ba may jël ay poids lourd boobu raw gaddu laay def ba jël ay poids lourd boobu raw gaddu laay def nonga dara temps moo ñu xaj jël ay poids lourd raw gaddu laay def man du yow temps ñu xaj bu ko ñu bi mu ay rek wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ñi fi nekk amaat yi ak yi di promoteur bi nga sunu nit la Elimane loo dafa nekk nit koo xam ne ñun si li ñuy yëngu saa yu ñu wootee dañ koy gis donc li mu def tey muy jël bés bi jagleel ñu ko kontaan nañ ci bu baax te jël nañ ko ak fierté te jour ba incha allah dinañu ñëw ànd ak waa Guy Mouride yëpp ànd ak waa Tëngéej yëpp ànd ak ñi nga xam ne mooy sunu association ASEC nga xam ne tey euh, président comité d'organisation bi muy Diol Tafa Diol mi ngi ni lepp ci loxom lañ koy tek donc bu jour ba dinañ xamné vraiment wa Guy mourid ñew nañu. liñuy wax mbër yi nag mooy lépp li def nañ ko def ci fair play parce que bëss ba bu jallé ben vainqueur moy am ak ben vaincu donc lepp nañ ko def ci fair play ñu jappalé leen comme ni ko Elimane di défé mu sawar toujours di jappalé mbër yi ñuy continuer di def liñuy def. ni ko président CNG bi waxee léegi représentant CNG bi ni mu ko waxee lépp looy def def ko ci yar ak teggin ñun ci éducation la ñu xamee mais tey bu ñu ñëwee ñu ne am na mbër bu tudd ndongo daara te ndongo daara ku ko dégg xam ne mooy koo xam ne dafay jàng donc kuy sàkku xam-xam donc euh, double bu jagle léegi la wax ne guy murit la dëkk man guy murit googu falaa sosoo donc ñoom ñaar ñëpp sunuy nit lañ lépp li nga xam ne làmb ji laaj na ko dinañ ci dinañ ko dinañ dinañ ko def ànd seeg sunuy sun sama sœur bi madame Aw nga xam ne moom directrice d'école la parce que tey lépp loo xam ne dafa touché ci école indaale nañ ko indi nañ ñiy jàngale ci école bi indi nañ benn directrice d'école moo xam ne nga xam ne fii la nekk Bargny muy kaamusa jum mooy directrice bi ànd ak samay soxna ayu ak euh, Oumou Kalsoum ànd aussi ak sunu photographe bu ñaawul bi muy Ardo donc ànd ceeg Abi Diarra nga xam ne moo représenté personnel bi ak Tafa Diol ni ma leen ko waxee. bés ba daal dana rëy dana neex incha allah ñuy remercier bu baax Xaadim Thiam bi nga xam ne mooy euh, nit la ci ci ci ci Elimane nga xam ne vraiment rakkam la xaritam la léppam la. donc damay wax rek lébu lébu sa sa benn soxna mi ngi fi muy ayu muy euh, ayu ayu fay jabaru maas donc mi ngi la doon seetaan légui xamna mom yow lay yow yow yow lay faral jour ba waaw donc vraiment ñu ngi gëreum ñëpp di leen sante bu baax di euh, gëreum ajaratu ndikku ci wayu neex yi yeen ñëpp yeen ñi fi tew yëpp ñu ngi leen di gëreum di leen wa salam jërë ngeen jëf ci mbaka bu baax a baax pëcc Simon Dulo pëcc loo Brock énergie pëcc loo pëcc loo doomi Modou Patino Patino Dominoc énergie Patino Patino Patino ndeysaan ku ne xam ci wàllu làmb mooy daje ak ki nga xam ne moom moo di Brise de Mer waaye comme Brise de Mer ñëwul ñu ngi koy ñaanal xamu ci lu mu nekk waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm ba le 14 incha allah j'appelle rapidement ki nga xam ne moo di monsieur Pathé Faye di jarbaat ci El Hadj Diouga Dieng monsieur Mor Faye alors di Mor Diop Faye di jarbaat ci El Hadj Diouga Adja Aram Dieng di doom ci El Hadj Diouf Dieng di daal di recevoir Aïcha waa Bari Nama, Bada Faye monsieur Mar Diop ak ki nga xam ne mooy Adji Arame Dieng Dieng bu nga defee ñu daan ci sànni kàddu après ñu ñëw ci ba juróom. jërëjëf salaamaaleykum ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci Seydina Muhammad di am mbégte ak kontaante boo xam ne tey réew mi Sénégal Cap-Vert gi. am na nu mbégte tey ci ki nga xam ne tey ñu ngi koy jëloo njukkal limaan jërëjëf kii nga tudde làmb ji wutal ko drapeau muy alaaji Jugo naxar la fi bàyyi waaye bàyyi fi gàcce lu tax dund na ba dee def lu baax ci ay bokkam am diine bëgg liggéeyam fonk ku ko xam di nit ku baax juddo fii mu war a juddoo ba yàlla dogal li mu dogal ci moom kon bàyyi na fi way tey waaye nga def loo xam ne raar na lool ndax kuy dund la ñuy tuddee drapeau waaye nag ñu ngi fi ñëwee ci ndigalu doomam taawam di Alpha Dieng ak famille bi yëpp ànd ak jarbaatam bi nga xam ne moo nekkoon bras droit di Pathé Faye ak aram jéen teewal fi famille bi yëpp awa jaaw fay ak Aïcha Ngom ak Mar Dieng ak ñoom Momu ñoom Pamma ñoom ñëpp sobeel awa jaawa Ndeye Guèye ak képp koo xam ne jobooto Alaaji Jëng ak ajaratu Penengaan mi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay ak ndikku cuun mi nga xam ne fekk nañ ko fi sànq mu woy woy woowu mu woy Alaaji Njuga ndax jëf du may jëmmay dëddu ili dina la wan ne la lebal nga koo xam ne ay bokkam ñu ngi dund lebal nga Kaver waaye lebal nga lébu gi waaye lebal nga koo xam ne incha bu nu yàlla yóbbee ci làmb ji di nga xam ne ku nu dóor dinañ fayu ndax allah juga dafa cher ci ñun bu doon dee dañ koy jënd du fi jóg ndax def na lu tax ci réew mi tey Kaver ak lébu gi ak ay bokkam ba ñëpp ràññee allah juga dañ ci international mu jëf ci wàllu way ak wàllu artiste fexe ba teg njabootam ci dëgg ak jub ak lu baax damay wax na xale yi yéen a bëgg a way rek waaye seen bàyyi noogul la ndax bàyyi na fi teraanga ak ay kër ak loo xam ne tey ay bien la waaye ku ne ak sa yoon kon tudd ngeen ko baax ngeen defa ko fii nga xam ne nag fii lañ ko tuddee bi muy dund fii la bokk yëpp teewoon ñoom man Mansour mbay ak ay bokkam yëpp ñu tuddee ko centre social bi muy alaaji Ndiougo kon boo leen ñëwaatee fekk si waat ni fii delloo ngeen mboj sa mbag daa la kon ñu ngi sant di wax ne waa bang ñi seen bésangoog la 14 ñu bëgg dinañ yabal ay kaar dinañ jënd tike yi dinañ taxawu def délégation ànd ak taawam Alpha Dieng ñu wane ne àlla ji duga day bàyyi na fi ndono boo xam ne tey ñun nii di ay jarbaatam xanaa jooy weet waaye baax ak jikko ak melu ak jëfin ci moom la fekk baax kon waa Bargny seen bés a ngoog incha allah ñu fekk ji limaam yàlla yàlla defal jàmm. voilà merci beaucoup. loolu mooy nga xamante ne ñoo jógee ci parrain yi. ay ca dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ni moo di le promoteur ci waral bés bi tey mu di Elimane Ndour ismihi sayid fi lardi wala fi samaa'i wa sabil alim ñu ngi nuyu képp koo xamante ne siine yaa ngi ci jataay bi di ci jiital nag nuyo bi waa kër El Hadj Ndiouga di am kontante nag ak mbégte ak xol bu sedd lool lool ndax jaadu na yàlla na tey ku mel ne suñu papa El Hadj Ndiouga ñu delloo ko njukkal sàggal ko fàttali ko ko donte fàttewul ko te kenn du ko mas a fàtte mm-hmm. ndax macha allah liggéey na ci réew mi loo xamante ne si ne nag war nañ ko fàttaliku marqué na ay empreinte am vraiment teewal na Sénégal fu ne def na lu nekk ci dëkk bi ci jàmm ak xéewal ak sutura ak boole ay bokk ak jàppalante ak ay mbindeef ak dimbali ak ay nit ci orchestre Baobab bi mun a xam ne ci la nekkoon kon loolu dafa xamante ne si loo xam ne lu am solo la ñu ngi leen ci sargal di leen ci tatagal di ko ñaanal yàlla fa mu tëdd yàlla na suuf woyof ci woyof ci kawam vraiment léegi li ngi ndikk cuur léegi dafa daw yaram bàyyiwu fi gàcca wéet la fi bàyyi loolu lañ koy seedeel te vraiment nag di am ci moom yaakaar di ñaan yàlla yàlla teeru ko te teral ko ci barke Seydina Mohamed di gërëm nag suñu ay sponsor yi nga xamante ne si ne ñooñu gunge tey parce lii bu ñu ko mënee yaakaar naa benn ci wan xbet CO Tampico euh, Fitness Vert Alba Trading KBGL KGD KBGL ak King Boisson ak ñi nga xamante ne si ne tey ñoo taxaw ci bis bi jàppale nu gunge ñu jox ñu doole tey jii bañ a mën a tëgg làmb joo xamante ne si ne réyee na duppee ko suñu papa El Hadj Ndiouga vraiment daal Tampico gunge nañ ci ak CO ak yeneen experts yi nga xamante ne si ñëpp gunge nañ ñu ci bis bi. loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax di sant bu baax a baax a baax ñi nga xamante ne si ne jàpp nañ ci liggéey bi yëpp muy waa Njàmbur production di ci jiital nag Xaadim Thiam mi nga xamante ne si ne mooy coordonnateur bi nga xam ne vraiment liggéeyam set na rafet na ah di sant nag mu sa Faye ndax mu sa Faye day kenn ci ñun ñu ko ci sargal di ko delloo njukkal parce que gis nañ ne vraiment liggéeykat la te jàpp na ci réew mi bu baax a baax a baax a baax yaakaar naa ne jàng mooy lépp koy yor école tey di jàng di former ay nit leen jàngal di def ci ñoom xam-xam yaakaar naa ne loolu rek doy na sàkku xam yaakaar naa ne àddina dafa wax ne jar na dem ba Chine ñun nag demuñu Chine ñu ñi ngi fii Sénégal euh, Moussa Faye di ko def ci élèves yi di ko def ci nit ñi vraiment ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax a baax a baax Moussa Faye nag su ma ko xamee grâce à Séga mu doon xaritu Séga Ndoye ñu ngi nuyu nag suñu xarit Séga Ndoye Euh, di timit euh, jaale Lamine Samba ndax dafa waroon a teew fii tey ci sunu wet yaayam moo génn àdduna semaine yi moo tax teewul tey fii ci suñu wet su fekkonte ne tey nekkuloon loolu tey dafay teew fii suñu wet wante nag macha allah Ousseyn yaakaar naa ne tamit mu jëwul poussé bu mu réer ndax gis nañ taxawaayam ak Badou Mbaye waa LVD ñoom Babacar ak journaliste yi nga xamante ne si tey ñëpp ñu ngi nii toog ci ngoon ba léegi di filme di wane di dugal vraiment ay jàmbaar la ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal nag euh, euh, l'ordre yi parce que ba ñu fi ñëwee di depuis di heures 18 heures ba léegi ñu ngi fi guddi na gis ñu fi dara lu ñu naqari amul benn ñol-ñol amul benn jàmbaar ñu ngi leen di gërëm bu baax baax di gërëm Petit Lo aussi tamit di gërëm aussi tamit képp koo xamante ne si ne mi ngi jàppale ñu jàpp production di gërëm commandant Diop bi nga xamante ne si ne tey Bargny moo ñu yombalal lii ban man koo def ci biir Bargny macha allah te amul benn problème ñu ngi koy gërëm ñu ngi gërëm Cheikh Ndiaye di gërëm képp koo xamante ne si ne mu ngi teew tey ci jataay bi di gërëm waa CNC nag di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax ndax ñu ngi jàpp ci liggéey bi vraiment ñu ngi def seen wareef ñu ngi liggéey ni mu ni ñu waree ñoom assise manager yi nga xamante ne si ne ñoo sécu ñoo yore mbëri yi ñu ngi leen gërëm ñoom bu baax a a baax a baax a baax ku ci mel ne Pape Diagne Seras ñoom assise ñoom Mataan Ndiaye ñoom ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi jàpp ci liggéey bi vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, Adja Ndiku daal tey sama xol dina yàlla nañ ko àggale ak jàmm ak salaam di jox ñëpp nag euh, rendez-vous incha allah la 14 juillet ci gërëm nag famille El Hadj Dieng baax a baax commencé ko ci Alpha ak ñi mu àndal ay rakkam ñoom Zabel ñoom Momo Pammar ñoom Aram ñëpp vraiment ngi leen di gërëm ñoom ñëpp vraiment di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di leen wax nag jaajëfati jaajëf bala 14 incha allah jërëjëf di nuyu ñu fi nekk nii ñëpp sunu suñu yaay fi toog ak sunu papa yi xam nga di nuyu waa Bargny yëpp di leen bëggee bu baax a baax xam nga di nuyu sama mbokk lébu yëpp fukk penc ak ñaar yi xam nga di nuyu bu baax sama sama ndijaay jaraaf jaraaf tanoor kan bu tëngéej Eh, jaraaf Tëngéej sama nijaay maa koy woo bu baax a baax ci combat bi di ko bëggee bu baax baax xam nga di nuyu waa parcelle 1 bu 26. xam nga di nuyu ñëpp di nuyu sama grand frère yi teew fii def boobu léegi ñoom tam ñu fi taxaw di ma xaar xam nga ñoom tiif ñoom suma ak sama rax yi fi nekk nii yëpp di bëggee bu baax sama papa Ali xam nga di bëggee ñëpp di bëggee sama gaay ma àndal bu baax di souhaiter un bon anniversaire sama tonton Papa maa ngi ko souhaiter joyeux anniversaire looy wax Petit waaw Petit Lo avant tout maa ngi koy wax euh, dafa am question bu ma koy laaj avant ma koy wax dara euh, nan nga dundee tey face à face boo xamante ni sa adversaire ñëwul nan nga ko dundee tey. amee na ngeen ko ñaanal yàlla ko jàmm tey rek. bu bés bu incha allah di ko ñaanal yàlla ko jàmm tey bu bés bu ñëw incha allah. alors bi passé mu tëkku la yu metti ngeen tëkkunte tëkku yu metti mën nañu xam jamono ji fan ngeen toll ak nan ngeen di waaj bés wi. waaye si mën nañ ne ñu ngi si dernier réglage ndax lu ñu fi amul woon ba léegi rek mënatuñ ko am te dañuy ñaan yàlla may jàmm xam nga may ñu tal ak fekkee moom yàlla defal ko jàmm bu baax bu bés ba incha allah di ñaan bu jour boobaa mu ñëw si jàmm ma daan ko si jàmm mu ñibbi si jàmm ñun ñëpp ñibbi si jàmm incha allah alors ngay mbër mu mag euh, Sénégal yëpp xam la Sénégal yëpp bëgg la wootal ñu xool ñan ngay woo non man duma mbër mu nag <laughs> mbër mu ndaw laa waaw maa ngi woo waa parcelle 1 bu 26 xam nga di woo waa Tëngéej yëpp waa Thiawlène bàyyi ma kenn xam tënkee booy balaa ngaa woote. kii suñu frère la dafa am question pour yow. ñu bàyyi ko mu posé ko rek. Fati ñu ngi lay nuyu. di nuyu promoteur bi. di nuyu waa Bargny sama dëkk fi ma teew Balu di la nuyu encore une fois. Petit Lo sa adversaire dama ko seet si yi am nga adversaire nag bu mën a bari ku bëri technique. xam na ko xaw ma naa xam nga ko wala xamoo ko. combat bi passé gis nga ni mu demee. bii waa Caaroy sas ko na ko Petit Lo boo demee foo jàpp si moom yaram bi foo jàpp si moom dama bëgg nga daanal ñu ko Petit tey sa adversaire wax la loolu caméra yaa ngi jàkkaarloo yow lan nga koy tontu si lool lan nga koy fas yéene def ci loolu kee eh, man amul lu ma koy tontu le 14 soreetul incha allah moom dafa waroon ñëw fii dèjà ñëwul kon amul lu ma koy tontu dama koy bàyyi ba le 14 le 14 dimanche bi di ñëw bi sopp la e boobaa lu mu mën rek na def bu njegee ci géew bi eh, bu njegee mais Ouzin dafa mel ni trophée yi ah, trophée waaw mën a dem ci trophée bu ko defee rek di euh, remettre li nga xam ne moo di trophée yu am solo yi nga xam ne benn ci nekk am na signification. ndeysaan. mu ngi noonu trophée yi ñoom la ñu daal di jël remettre leen ñi nga xamante ne ñoom ñooy. famille la euh, la famille la famille Ndiaye Missane soutien Sabel Dieng. donc la famille Missane Ndiaye soutien Sabel Dieng loolu soutien la boo xamante ni ay xaritam ay am di jàmmam ñoo ko jël jagleel ko ko mu di Sabel ku gis micro bi xam ne.

ci li nga xamante ne di bés bi face à face bu ne passé képp ku ko bàyyi xel xam nga ni Serigne Mbacké Ndiaye jël na engagement bu baax a baax a baax ngir taxaw li nga xamante ni ñoom ñooy famille El Hadj Diouf Dieng donc la ñu jàpp ne monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye moom moo defar bi le trophée daa di ko jagleel li nga xamante ni ñoom ñooy kon trophée bi ñaari mbër yi ku daan yaa ko moom ma ne trophée bi ñaari mbër yi ku daan yaa ko moom te bu waaw ku daan yaa ko moom. parce que pour drapeau bi ku daan da ngay ñibbiwaale ñoom. parce que ki nga xam ne moo ko defar mooy Serigne Mbacké Ndiaye te ku ci nekk dégg na bi passé li mu wax. kon euh, li nga xamante ne mooy témoignage yi mu def si El Hadj donc moom moo tax moom it mu bàyyi itam yëpp ñoo gunge ci ñi nga xamante ne ñooy famille El Hadj Diouf Dieng nee na doo leen ci def dara te du ci def dara.

ngeen daal di ko jël jagleel ko ko di xam ne moom am na wàllam ci bés bi ndax sonn na lool ci bés bi yàlla dogal tey yaayam ngeen àddina ba ñëwul ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax. kon famille El Hadj Diouf trophée yaa ngi noonu famille El Hadj Diouf drapeau baa ngi nii ñu jël ko ko une icône de la musique sénégalaise. boy yaay tawé ñu may woowaat baax waat tëngëj di woo sama mbokk lébu yëpp fu pénc ak ñaar yi di woowaat sama ndijaay xam nga bàyyi jaraaf jaraaf tëngëj maa ngi koy woowaat baax ci combat bi xam nga di woo sama frère Faye Mbodj Faye di woo waa Ñoojoor yëpp xam nga di woo waa Parcelles 26 xam nga di ko baax sama papa Modou Lo di ko waat baax ci combat bi xam nga Mansour Ba di ko woo baax ci combat bi xam nga ak Ron si Ron si Ousmane si di ko baax ci combat bi ak Ron Ron tamit aussi ñu ngi koy baax baax ci combat bi xam nga Go Faye ñu ngi lay woo baax baax ci combat bi Félicité ñu ngi lay woo bu baax ci combat bi du Sénégal Omar Dioum ñu lay woo baax baax baax ci combat bi di woo waa parcelle la nga bëgg benn di wax waa Tëngéej yëpp yëpp yëpp képp ku bëgg a ñëw ci combat waaw sama open press nag le 10 juillet la incha allah mercredi le 10 juillet maa ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp.